alayhi wa sallama ñuy sant borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne moom lay wax ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha moom borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu bind ne dañoo bind ngir ñu jaamu ko di ko jox li nga xam ne moom la yeyoo ci ñun di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak ñun تتاي نكتن في دنيان دلن نيان الجيجل برام سبحانه وتعالى أجر مادم دلن نيان اليال الجيجل لين تبال لين تحار لين أجنا دنيان نيغا خمنا نيوف نك تد خوا جغدي يالنا لين يال لما يأغوير نيون نيغا خمنا نيوف نك تدار جوتو نيو يالنا نيو يال لما يأغوير تسخل نيو كي ديكو جامو تيال فكلو نيو اي دوين دوين دوين تأند كاتنو جامو أكاتنو بيونغو yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal mbokk yi ñu ngi ci weeru koor ku nekk xam na ko koor gi nga xam ne moom lañ nekk day weer la woo xam ne ay ngëneelam kenn xamul nu mu toll weer la woo xam ne lees si mën a profitoo ba am ko ci bari na lool li ñuy jàngale koor it bari na lool waaye tey ñu jël lu am solo loo xam ne naka jekk day am solo waaye rawatina ci weer wii nga xam ne ci lañ nekk loole nga xam ne képp koo xam ne tëwoon na la tey ab occasion bu rëy ngi nii boo xam ne mën nga cee profité te amul kenn ci ñun lu dul ne soxla na ko te loolu mooy jéggalu say bàkkaar baalu yàlla jéggal na amul kenn ci ñun koo xam ne lu dul ne xëy nga suba ba ngoon lu dul soxla woo nga sa borom bi subhaanahu wa taala jéggal la ciy bàkkaar amul kenn ku mën a taxaw fëgg ab dënnam ne damaa set wecc ci damaa mucc ci tooñaange yi nga xam ne moom laa séq ak borom bi wala moom laa séq ak sama moroom ci joxe ay àq ak ay matal ko kon nag war na ci ab jaam muy profitoo posé yu mel nii di ci dellu ci borom bi subhaanahu wa taala lu baree baree bëri weer a ngi nii woo xam ne ku ci farlu yàlla jéggal la mboolem bàkkaar boo xam ne moom nga defoon lu jiitu weer wii kon nag ñoo ngi ñaan ñun ñëpp ñu jéem cee farlu te luñ ci farlu rek yàlla nañu ko yàlla jéggal mbokk yi bàkkaar day saa bu ko ab jaam defee am na lu muy bàyyi ci ab xolam saa bu jaam defee bàkkaar mboolem ñi nga xam ne ñooy kutubu sitta di borom téere yu mag yooyu saxal nañ ne sax na ci sunna ne nit ki bu defee ab jaam jaam bi bu defee ab bakkaar ngeen baal ma ala bi na bakkaar ba toll lu toll noonee lay def lu mel na ab tomb wala lu mel na ab marke ci xolam loolee nag du dañ di yokk li fekk jaam bi mu ngi yokk ay bàkkaaram yàlla nañ si yàlla musal waaye nag saa xamee ne nag ñaawlu na la mu def daa di rëccu daa di jéggalu borom bi daa di tuub yàlla daa di far loolee kon ca kem na muy yokkee ay bàkkaaram la nga xam ne mooy tomb boobi wala la nga xam ne mooy rëdd woow yi day yokk di yokk mën naa dem ba feesub xolam bu feeseeb xolam nag xol boobi dañ koy tëj xol boobi borom bi si boppam moom moo koy kasteel boppam mooy xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa day mujj bokk ci ñi nga xam ne mënoo leen a waar boo leen yóbbu woon ci biir kaaba ga wan leen kéemtaani borom bi yépp di leen waar ak di leen defal lépp loo xam ne mooy tax nit jubit duñ mën a jub yàlla nañ si yàlla musal foofu de bu fa ab jaam tollee naagu lañ si moom ne kookee du tuubati mooy kallaa barraana ala qulubihim moy ñi nga xamne seeni xol dafa wo koŋŋ wala seeni xol dafa xuma xumaag yàlla mi ngi wax ci alquranul karim amna ci nit ñi ñoo xamne xeer yi sax mo gën noy seeni xol ndax amna ci xeer yo xamne leg leg dana toj ndox génn ci waye amna xol yo xamne kenn mënu ko jubante te yàlla nañ yàlla musal ci dajje ak ñu mel noni kon war na ci jambi muy tuub bala muy yegg ci niveau boobu bu dee tuub nag yàlla di ko jéggal di ko jéggal di ko setalal ab xolam mën naa dem a dem ba xol ba dara du fa nekkati lu dul ak leer rek waaye bu yàlla tëjee ab xolam nag xol boobee ak gëm yàlla du fa duggati moos waaye nag li nga xam ne moo di ak kéefër aku caay-caay aku mbon du mas a jóg ci xol boobu mukk mukk kon nag lo lool yi lu mat a bàyyi xel la te li ñu siy dimbali rek mooy saxoo di tuub kon nag bépp jaam boo xam ne xam na responsabilité bi mu am ci digganteem ak boroomam war na ko muy bañ di néewal lii nga xam ne moo di tuub di jéggalu lu baree baree baree bari ci mboolem anam yi nga xam ne moom la ñuy jéggaloo di tawassul ci al amal as saaliha muy def lu baax ba noppi ne rukk ci suuf ne yàlla sab jaam a ngi nii yow boroom bu màgg bu kawee bu tedd bi man sa jaam bu xeebu bi nga xam ne du ma tus ci sa kanam man mi nga xam ne maa bari bàkkaar yow mi nga xam ne yaa mat li nga doon yow mi nga xam ne antal ahadul fardu samadu alladi lam yalid walam yulad yàlla jéggal ma samay bàkkaar su ko defee jaam boobi mën naa am yàlla jéggal ko ab jaam du rëy ci kanam kanamu ki nga xam ne moo dib sangam te sang buy sang sangulu yàllaay sa borom mooy sa buur kon ab jaam war na di rukk ci kanamu boromam subhaanahu wa di ko jéggalu ay bàkkaaram mbokk yi lu sa taar rafet rafet lu saw yaram yanji yanji lu sa col rafet rafet lu say compte bancaire fees fees saw askan lu mu kawe kawe ab jaam dong nga ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala léeg-léeg wéetal ak moom ci sab ruq ne ko yàlla sa jaam baa ngi nii dëkkee di la tooñ waaye di dëkkee di yaakaar sa njéggal yàlla sa jaam baa ngi nii baal ko kon sax na ci sunnaas yonante bi sallallahu alayhi wa yonante bi nee na jaam yépp ay tooñkat lañ waaye tooñkat yépp nag ñi ci gën mooy ñi nga xam ne dañuy reconnaître seeni njuumte di baalu di dellu ci yàlla ñoo ñi mooy ñi nga xam ne ñoo gën ci tooñkat yooyu kon nag war na ci ab jaam saa bu toogee ab diir lu mu gàtt gàtt ay bis bu ne mu jéggalu boroomam subhaanahu wa taala tuub warteefu bépp jullit la te bañ a xeeb benn bàkkaar te bañ a néewal benn bàkkaar sëriñ bi mi ngi jàngal ne lépp loo xam ne mënoo ko muñ ci safara rek lu toll nee na bu ko def ci bàkkaar kon bàkkaar jër te xeeb bari na lu waaye di xeeb ci safara mu lakkub daayam bàkkaar amul bu tuuti waaye nag li nga xam ne moom ngay xool nattuwaayu bàkkaar mooy màggaayu ki nga tooñ màggaayu ki ngay tooñ ci ngay nattee sërëyaayu bàkkaar waaye boo xoolee tolluwaayu jëf ji te fàtte màggaayu ki nga xam ne moom ngay tooñ bu boobaa mën ngaa xeeb sa bàkkaar te yàlla nee na bisa ngi ñëw boo xam ne amul lu tuuti wala amul lu rëy lu dul ne nit jëf na ko lu dul ne loolee dañ koo jóor ci kanamam mu di gis laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsayha ma maa li hada alkitaabi laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsayha bisa ngi ñëw ñëw boo xam ne kenn ku nekk la nga jëf danañ na ko coow si sa kanam nga koy gis bisa ngi ñëw boo xam kenn ku nekk danañ la takkal téere boo xam sa report card moo cay nekk muy mboolem loo xam ne nga jëf ci dund bi kon mbokk yi sama borom subhaanahu wa taala dafa nekk borom boo xam ne dafa bëgg ay jaamam tooñaa ngay bari na lool waaye yërmaandeem yaatu na lool kon mbokk yi nañuy faral di ñu daw di daw di dellu ci li nga xam ne moo di ak tuub te matale li nga xam ne moo di ay sartam mbokk yi nañ tuub dellu ci borom bi te bu ñuy tuub nañ amuk dogu ci suñuy xol ne ñun ay jaam lañ tooñ nañ waaye fas yéeneetuñoo dellu ci ab bàkkaar sëriñ bi mi ngi koy jàngale ci tasawud sixaar li nga xam ne mooy at tawbatu nasuux na ngeen di tuub tuub goo xam ne tuub bu sell la mu mel na dañuy jàngal lan mooy tuub bu sell mu ne nga rëccu jëf ji nga xam ne mooy jëf ju bon ji nga def nga dogu bañ a delloote ci benn ci bàkkaar ci li nga xam ne moo des ci sa dund waaye tamit nga am yéene ci jamono bi nga xam ne moom ngay tuub loolu noonu booy tuub noonu yi nga koy tuubee ndax képp koo xam ne dafa danee tuub ah tuub dana weesu de tuub dana weesu am na foo xam ne foo jaam to tollee day bu fa jaam tollee mën a tuta tuub mën a tuta tuub tuub nag fi muy mënee nekk dëgg-dëgg mooy jaam bi nga xam ne tooñ na waaye tey bi muy tuub dara tereewu ko dellu ci bàkkaar ba lu du ragal boromam subhaanahu wa taala يالنين إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يالا نيم گنا بال موي نيغا خامن لا نجيفون نانكو خاموت ريرا تاخ واي داو دل سي بروم بي دادي وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لانا يلا نين توب نيلو نيغا خامني داني ديف لولين نيخ ديم با ييغ فو خامني فخي جيخنا نيغي تود سي لالوب دي ولا تاي نياك نان كاتنو ديل سي باكار با ني نيغي جيغول يلا نين ديدت يلا دولين بال sama borom nak ci ak mbaaxam mi ngi ñuy ci alquran ne yéen ñi gëm yàlla ila ilallahi tub len dellu ci yàlla tawbatan nasuhan muy tub gu sel ndax tub gu sel gogi moy mën tax yàlla jéggal len seeni bakkar su len jéggalé ba nopi du ca yam de waye la ngeen jëfoon mu nekkon lu ñuul daf koy soppi daf ko lu weex su ko defé nak yàlla nee man na len caa fayal aljana jo xamne lay nekk ci suufam moy ay dex yo xamne dex xéewal la kon jaam bi saa boo xamee ne mooy nga man jaam bi saa boo xamee ne mooy naa amuñu dara lu dul moom lañ mën a def lu dul nag mooy tuub bu fekkee ne loolee ñuy def ab àq la boo xam ne yàlla lim ñu sant dañ caa gàttañ la dara bu boobaa nañ daw joxe àq jooju noonu niki am na bori waxtu julli yoo xam ne julliwuñ ko nañ dem fay waxtu julli yooyee te soog a tuub bu fekkee ne loolee nag dafa nekk toñangé bo xamné dafa delu ci moromi jami bu boba niko ko sëriñ bi jàngalé summa mazalimu atat qismayni amwalan wa aradan bighayra bighayr mayni sëriñ bi nim ko jàngalé moy toñangé mom dafa am ñaari xaj dafa am lo xamné toñu der la dafa am dafa am lo xamne toñu der la dafa am lo xamne benen xet toñ la bu fekke nak toñu der la li nga xamne moom nga moom nga tooñ moom nga tooñ ci der bi wala moom nga tooñ jaam bi loolu daf ko danga koy da nga koy sàkkoo dagandul lan mooy sàkkoo dagandul mooy ki nga tooñ nga dem ak tooñu alal am waalan wa aaraadan tooñu alal ak tooñu der bu dee alal nga delloo ko bu dee tooñu lu mel na xasak ak jëw ak ŋàññ ak fitnaal ak yu ni mel loolu nga dem ca ka nga xam ne moom nga ko séqal nga jéggalu ko comme ni nga xamee ne noonu la ko imaam yi di jàngalee lu bari kon bu fekkee ne tooñu alal la danga koy jël nga delloo ji ko nante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne am na àq gi dox ci digganteem ak moroomu jaamam ni ko lu mel na bor wala lu ni mel nee na nga dem delloo ji ko ndax bisa ngi ñëw boo xam ne day nee na dërëm amu fa dinaar amu fa dërëm amu fa diinaar amu fa koo xam ne dafa saaga woon moroomu jaamam na dem jéggalu ko donte mën na koo bañ a nettali saaga wa koo xam ne dafa lekkoon alali jàmbur na dem delloo ko koo xam ne dafa jëloon lu mu moomul ci nit na dem delloo ko koo xam ne dafa séqal nit lenn te mataliwul àqam ni ki dëkkal nit dëkkal la ci am néegam ngeen waxtaan ba juboo weer bu dee na ma fay nangam nga dikk ne faax def yëfi tëxët bañ koo fay ngir ne amoo doole moom amul pexe amul doole loolu bis bu set ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy yaakaar ne man nañ dara ñu ñuy woo dañu boole ci àq yu mel noonu nit a ngi nii ñoo xam ne dañuy dëkk ci néegub jàmbur bañ fay dëkk xam nañ ni yoon di doxee xam nañ ne kuy dëkk da ngay joxe déposit doora doora doora dëkk ñu dikk tëdd fa weer yàlla dañ fay ñu naan déetawaay ba mu yàgg ñuy jëlal weer mu gi ñuy jëllal ñeenti weer mujj gi ñuy jëllalum at faf benn yoon mujj gi ñu ne ko ba la neexee nga yóbbu ma koot loolu tooñaange la joo xam ne képp koo xam ne nekk nga ci na la wóor ne ëllëg yow mal xiyaam la nga ko yoral ci ay dollar yépp danga nga ko ko fay te nag dollar amul foofu noonu xëy na danañ ci dikk incha allah kon mbokk yi ñu bàyyi xel tooñaange yi ñaaw yii nga xam ne day dox suñu diggante bis boobu nga xam ne bis la bu metti boo xam ne képp koo xam ne tooñoon nga sa moroomu jaam ëllëg nga war koo fay te amoo lenn loo ko fayee danañ jël sa jëf yu baax yi di ko ko jox di ko jox keneen di ko jox keneen ba mu jeex tàkk man nga dem ba yegg fo xamne amatul dara lu bax loo ma a faye kenn waye nak ñinga nga ñuy jël seeni bakkar di leen ko xep di leen ko xep di leen ko xep ba mujj yow nga nek ko xamne sab yan day dis comme niko Serigne Touba jàngale rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده موكي ñu àndandoo julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la ñu yàlla digal ñuy julli ci moom mbokk yi bis baa ngi noonu de boo xam ne ku fa amee àq da ko fay sama borom nee na ragal leen bis bii nga xam ne am mbugalam dafa tar lool bis boo bii nga xam ne inna zalzalata saati shay'un azim nit ñëpp ay jàq nit ñëpp ay téet bis boo bi nga xam ne danga gis koo xam ne dafa yoroon doom tiit ba sànni ko waaye da nga gis koo xam ne dafa ëmboon tiit ba jur danga gis xale boo xam ne dafa karaw ga daañu ñuuloon mu tiit ba bi jaaw kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dana fa xew te it képp koo xam ne am nga àq joo xam ne mataloo ko sa digganteeg sa boroom wala sa digganteeg say moroom danga ko fay yàlla nee na ci alquranul karim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ين سمي جامي أخمني سن بكار دفا بري بغن جاخلي ين سمي جامي أخمني سن نتو جانج دفري بغن جاپني ين يي يوتلين يرماني يالا أحكي بلين ناغو يالا أكلين من جيكل aka leen a mën a baal daw leen ngeen dellu ci moom yàlla kat ku bëgg ab jaamam buy tuub la laa taqnatu min rahmatillah yàlla day jéggale bàkkaar yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ab jaam boo xam ne ab agresseur la woon bandi la woon lépp luy bàkkaar def na ko di rey di ray ba rey juróom juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent mu daal di dem ci ab labbe ne ko boroom xam-xam nga dégg naa man kat damay laaj ndax damaa jaaxle man dama doon damaa nekkoon ab bandi boo xam ne dama daan reye rey naa nag juróom juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent benn dong moo matal téeméer ndax su ma tuubee benn dong moom ma teree matal téeméer ndax su ma tuubee yàlla dana ma jéggal làbbe boobee ne ko mukk yàlla du la jéggal mu daa di mer ci tontin ba daa di koy rey moom faf mu nekk téeméer mu jóge ci loolu di dem di dem ba yegg ci keneen daa di koy laaj nettali ko li mu nettali woon kële ak bi ci mujj mu ne ko waaw yàlla day man na laa jéggal bi nga xamee ne wax na lool yi mu ne ko waaye nag faw nga génn fii nga xam ne fi nga doon defee ñaawtee fi nga dem ci dëkk boo mësta defee benn bàkkaar nga jéggaloo ji fa yàlla kookee yàlla dogal mu génn dëkk ba rek daal di faatu malaaka yi dikk di xëccoo ñii nga xam ne ñooy malaaka yi safara yi dikk ne kii ab tooñkat la woon ñoo koy jël yóbbu safara ñii nga xam ne ñoo di malaaka yërmande yi daan ne kii day dafa amoon yéene tuub ñoo koy jël yóbbu na yàlla ci maandoom ci yërmandeem daan ne ay wa natt leen diggante bi bu gën a gàtt rek fa mu jëmoon wala fa mu jóge ngeen yëgal ko foofee bañ demee ba nga xamee ne ñu ngi natt yàlla wëlbati suuf sa daal di jege lool fa nga xam ne fa la jëmoon malaaka yërmande daal di koy jël daal di koy dugal àjjana ab jaama ngi nii boo xam ne dem na ci kaaba ga ab bandi la woon daan def lu bon ma ngay wër kaaba ga te naan yàlla jéggal ma xam naa ne sax doo ko def yàlla jéggal ma xam naa ne sax doo ko def am ku jekki-jekki na tàpp-tàpp ci am mbaggam daan ne ko waay waay tee ngaa noppul ba nga njëkkee wax ne yàlla jéggal ma rek boobu la la jéggaloon allahuma axfir lana dunubana warhamna innaka anta alghafuru rahim rabbana atina fi dunya xasana wa fi l